yëpp a fees mm. li tax xol yëpp a fees mooy <clears throat> dafa am jum fu mu ñu fekkoon mm-hmm. fi mu ñu fekkoon mooy ñuy jaale di ñaanal suñu sang boobu di mm-hmm. suñu papa Cheikh Ahmed Tidiane mm-hmm. mi nga xam ne moo fi jugee te daanaka jógewu fi ndax dañuy wax ne comme ñoom ay nitu yàlla lañ dañu nit lañ yoo xam ne nii dañu jubook seen boroom ñoom du ñu dem ndax seen jëmm mën na làqu mhm. waaye li nga xam ne moom lañ jëf ci àdduna bi mhm. jëf jooju du fi jug mu te du mhm. dañ di ñu jëriñ ñun ñi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi euh, di ñaanal comme ni nga ko waxee suma sëriñ Baye Cheikh Mamour mi ngay wax nga xam ne tey lii nga xam ne nii maa ngi ciy yëngu mu neex nit ñi moom moo ma ci sóob moom moo ma ci jox ndigal ci naka macha allah waaw moom ma ci jox ndigal mooy bi ma koy commencé maa ngi ko commencé ci ëttam. ndeysaan. commencé ci ëttam dem xadaraam. Mm-hmm. bi ma demee ci xadara bi boobu dama demoon noonu rek xadara commencé wu ma sikar parce que mënu woon sikar waaye naka laa toog ba ci yàgg. Mm-hmm. ñuy sikkar di sikkar di sikkar ba ci yàgg ñu amoon ay gan gan ñi di waaj ñibbi mu ne gan ñi balaa ñuy ñibbi imaam waxal soxna si mu sikkar suñ imam bi ñew maa koy nuyu de passage imam yusuf mooy imam hadra bi. Mm-hmm. jamiatu mu bi hablillah mm-hmm. ne ma serigne bi mu ne nga tuddu yalla mm-hmm. ma taf sama gémmiñ nako tuddu yalla yàlla sikkar naa ma ne ah man munu ma de demal wax ko lolu wax ko nako demal nga ne ko mu tuddu yalla ma wax ko même chose troisième fois bi mu nako demal nga ne ko. ndigal la. kay bi mu ñëwee yegg si ci man ne ma sëriñ bi mu ne ndigal la. rek ma am ma ne xaaral ma am fit nag comme sëriñ bi ne ma ndigal la rek ma yuuxu si kër bi ma ubbee sànq fii. Mhm. moom laa tudd yàlla foofu nag. moom laa yuuxu foofu. daal di ko yuuxu rek nit ñi tasaaroo. Mhm. xam ne turu yàlla dafa am doole. laa ilaha illallah dafa am doole. fu la fekk jëlee la fa. dëgg moom yàlla rek mu des fa. Mm-hmm. ndax yàlla newul ak lenn fenn. Mm-hmm. loolu mooy waral nag ngay dem ba yow li ngay def sax dootoo ko yëg léeg nga gis ku yëkkati ku tëb ba ci kaw daanu ci suuf mbëkk miir yi ndax laa ilaha illallah mm-hmm. lu nekk ñu koy def <coughs> léeg nga gis ñu ne ñii ñu ne dañuy daanu rab. ñii ne dafa am lu ñu leen di jox. ñii ne lii ñii ne laa waaye ànd ak loolu yëpp euh, dañ fa dul nekk rek. moo tax dañ fa dul nekk rek moo tax mm-hmm. muy loo xam ne lu am doole la euh, biñ tuddee yàlla mu am ñu bëri ñu yëngu foofu nag mm-hmm. mu am ñu bëri foofu yëngatu lool mm-hmm. am ñoo xam ne ñu ngi jàppoon askar tarbiya am fatu foofu tey Fada Freddy mii ngay gis Abdou Fatah Seck ndongo ji Abdou Fatah maa ngi koy nuyu di nuyu moom ak ñoom ndongo bés boobu fa leen fekk ñoo bokkoon ñoo bokk benn sëriñ bokk xadara mm. jour boobu fala leen fekk waaye kenn mënu téye sa bopp ñëpp di jooy nag ñëpp ñëpp di jooy mm. jour boobu ci la mbir mi commencé mbir mi déclenché mm. bi mu déclenché it toog naa bés mu ne ma di nga dinga di nga egg sa tur dina egg foo xam ne di nga dem ba bës àdduna bi yëpp ñoo lay xam dëgg la jot na waxoon na ma ko. loolu jox ndigal dootoo am tànk ginnaaw. Ah, loolu am na baatin bokkut ba ti ne moo tax dama fu ma fu ma tollu dama koy sant. parce nit ku la defal lu baax. Mm-hmm. foo toll war nga di ko sant. dëgg la ni nga mel ba àdduna bi yëpp bëgg la sopp la. ki nga xam ne moo tax nga mel noonu war nga foo tool di ko delloo njukkal waaw man laa yaskuru naasa laa yaskuru laa loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadis ku santul mbindeef doo sant yàlla dëgg la ku maa ngi koy gërëm bu baax moom bëgg bàyyi moom mi nga xam ne àddunaam yëpp daf ko jël jébbal ko moo laa Mawlana Cheikh Ibrahim Niass boo waxee mu ne américain yi dañ ne time is money moom dafa ne time is buy moom bàyyi Cheikh Mamour Insa kon ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal yàlla nag yàlla bàyyi ko fi lool lool parce que liggéey bi muy liggéeyal bàyyi mhm. ci ndaw yi rafet na loolu wallaahi dëgg rafet na macha allah dëgg la di ko ñaanal di ñaanal mboolem muqaddami Mawlana Cheikh Ibrahim di ñaanal waa kër Cheikh al Islam yëpp di leen jaale di ñaanal suñu xalifa bi nga xam ne moo toog muy papa mhm. Mahi mhm. Cheikh Ibrahima Niass yàlla may ko gudd fan mu yàgg ñu jiite amiin di nuyu waa Mérina yëpp di bokk ak ñëpp naqar beeg tiis bi nga xam ne mm. naqar la waaye sant yàlla la ci ñun sant yàlla la ci ñun bu baax ndax moom mi nga xam ne moo dem papam seedeel na ko bi muy dund mm. ne moom ak beneen doomam bu ñuy wax euh, Cheikh Ahmed Dame ne sama ñaari Ahmadu yi sama mébét ci ñoom yàlla matal na ko kon donc loolu sant yàlla la moom ñu ngi am njortu ne mu ngi nekk ak papaam Mawlana Cheikh Ibrahim mm-hmm. moom ak rakkam ji nga xam ne moo ko fekkee ñi ngi ñaanal woy dawlu yëpp nag mm-hmm. képp koo xam ne nii génn nga àdduna ci at mi rek ñu ngi lay ñaanal ak ñi ñëpp ñu ngi ñaanal ñëpp yàlla yóbbu leen ci keppaaru yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. ñi fi des yàlla may leen gudd fan may leen wér yàlla musal ñu sàmm ñu dàqal ñu fi mbas mi nga xam ne moo fi nekk xañ ñëpp jàmm di ñaan nag Euh, waa Sénégal euh, di ko di ko di ko di ko dénk sama bopp aussi ñu jéem a farlu man li may bañ mooy feebar bi amut. waaw parce que loolu am na solo. am na ñuy dama bëggoon ñu yaatal ko ci kanam. Mhm. parce que fi nga des. Mhm. bëgguma nga génn fa. ndax xam naa di nga gën a kontaan parce que am na. Euh, Cheikh Abdallah di satu Baye ñas Yes. Salam moom la dem seeti. Mhm. te fi nga fi nga.